Euh, le 16 ak le 8 dafa sorewul ci même semaine bi la su wuy jee mambay le 8 le 16 mu dem wuy ji aji saar Assane nag léegi ñu ni waa lii moom nan la mën a nekkee maanaam affaire yi ni mu flagrant délai maanaam dafa flagrant trop daal jegewoo ñu ne nag Ousmane Sonko mi ngi doog a bir ni nag daj gars yi euh, maanaam baare ko ci candidature am moo ko moo leen tax a jóg. waaw ñaar yëpp day gëm ma ne dina ca wuy ji benn. Hmm. waaw gëm naa ne ñaar yëpp pare na ci. révélation la wala jàngat. waaw ah, ñaar yëpp pare na ci. pare na ci waaw. révélation la. waaw yëpp daal pare na si. fi mu daal ji day toog xool leen ba xam lu ñuy def si loolu la nekk. Hmm. ndax mu ne nii gars yi li ñu bëgg a def pare nañ ci dem def demul def. Ah, moom xam na ni gars yi li ñu bëgg a def. Ah, léegi nag toog seetaan leen ba xam nan la ñuy def ak moom lan lay def ci loolu lañ nekk nii hmm. joxe hélas. lii ab jàngat la bu rëy. jërëjëf diggante le 16 ak le 8 maanaam le 8 ak le 16 dafa soreewul hmm. su wuy jee mambay le 16 euh, le 8 le 16 mu wuy ji aji saar hmm. ndax xel nangu na lii nar a xew waa xam nga euh, yëf yooyu ni nga xamante ne bi noonu la demee muy ñaar yooyu yëpp nga xamante ne moom nga kii ni ñu dajale ñaar yi hmm. moo lay wan ne la man li ma gis mooy importance bi mu amoon. Mhm. dafa mel ni yëg nañ ni amatu ko. Mhm. waaw maanaam importance la importance bu mbir parce que bu fekkoonte ne bi mbir mi am na importance bi ñu ko joxoon. Mhm. gëdd gi euh, du ñu dajale ñaar yëpp ci benn semaine parce que dinañ xam ni mënta ne. léegi nag la fait que nag ñu bëgg a dajale ñaar ci benn semaine. lan moo tax li mënutoon a ne léegi mu mën a ne. lépp concerné kenn ki mm-hmm. peut-être mën na nekk naagu mm-hmm. goo xamante ni gi pour man nguur gi naagu na ko ne yëf yi daal ne waa ji naqariwut a lem waaw mën na nekk naagu gu ëpp mm-hmm. goo xamante ni gi nee nañ bon natt nañ xool nañ gauche xool droite daal waaye yëf yi euh, jarta sax jéem a jox benn importance bi dañ ne nag ku naagu daagu ku daagu taxaw ku taxaw ñu dem bala mhm. moo tax naagu wóorut mhm. lan lañ gis ba tax ñu naagu peut-être que nii testé dañ testeeti doxal nañ doxalaat mhm. peut-être ñu daan ne naagu nañ ñu ni waa ji jafewuta lem waaw loolu lenn la ci c'est que li leen euh, li leen réeragum mër mooy pour man ndax waa ji bu ñu ko téewee lan mooy xew ndax li xewoon dana xew wala du xew loolu moom la ñu essayé gut waaw waaw mais boo seetee non xagay jéemoon nañ ko essayé waaw noonu essayé woon nañ ko 24 heures Dakar yee mars ba waaw boobu la boobu boobu bi ñu ko essayé après dañu bàyyi waaw bi yoon maanaam def nañ comme ni nga xam ni noonu ngay expliquer à chaque fois mhm. euh, di expliquer nag ya waaw nee nañ ciix Mhm. Eh, waali waaw jàpp mhm. mhm. takkal lam ne ko demal ne ciix takkal lam ne ko demal ne ciix basiiru tée takkal luñ lam yaa ngi dégg dégg naa dégg la léegi ciixu boobu ñu def kii yaa ngi dégg waaw eh, téye ko taxat dammul taxat dammul est ay dégg naa la. kii xool ba xam déggu dégguñu dara gisuñu lenn ba léegi nee nañ ko ci te ñu ne ah. affaire ruus na. kon est-ce que ni mu waroon a mel mel na ko donc peut-être mën na nekk ni dañuy wax ni gars yi mooy loolu xam nga benn bis benn waaye daf mu mës a woo benn kilifa ay jamono. Mm-hmm. xam naa boobu ñu ngi doon seet ndax Walfadjri am na. ora ba tey wala amut ora boobu yàgg na boobu Sidi mi ngi dund. Mhm. Euh, kii quoi parce que pour nas parce que Walf ci ay jafe-jafe la nekkoon nekkoon nekk ci ay jafe-jafe yu métti yoo xamante ni bi nit ñi ñëwuñu def ay publicité defuñu kii et cetera comprendre mhm. mais ñu war a xool ndax mbir mi def na impact wala dafa waaye daf ma wane ma est ce que Walf nit ñaa ngi koy seetaan te mi ngi bokk ci biir euh, système bi. ay bi mu dalee ci man nag bon li ma ko doon na a ko wax Walf nit ñaa ngi koy bu baax a baax. Mhm. mu ne ma ah Walf kenn seetaanatu ko. Mm-hmm. comprendre nga. si man dama ne bon kii dafa de xam naa ne li may laaj nii après bi bi affaire yi kii ni laa soog a xam ni ma ne. Hmm. xam naa affaire yi ay sond la woon quoi. di xool ba xam ñii nga xam ni ñi ngi ci biir kër gi jege nañ kii lan la ñuy waxtaanee genre xibaar yooyu la bëggoon quoi mais xam naa ni sama tontu bi. Ah, euh, kiiw ko mais pare dañuy sond xool ba xam. Mm-hmm. ndax dóor yi ñuy dóor. ndax mi ngi def impact wala deful impact ndax mi ngi yëngal wala yëngalut man jàpp naa ni fi mu toll nii ci loolu la ñu ne mhm. léegi man dama jàpp ni le huit bi mhm. essai la waaw boo xamante ne bi dinañ essayer dara xool parce que loolu lu ñuy essayer la kii léegi Assane nee na Ousmane ko du dem mhm. waaw léegi nag nee na révélation la dañ ko daan jëli ci otoom ndax bu du ne du dem ñu dem ubbi ko ca këram ne dañ koy yóbbu parce que Idriss Seck def na signalement bu mel noonu. na dama naa ko coppet. waaw damay dem ni ko coppet te xat du dam. dara du yëngu def na def na signal bu mel noonu. Mhm. est-ce que plan Idy moom la ñu war a nekk di ko commencer di def. Mhm. bëgg a def. wala mhm. ndax dinañ xool. d'accord parce que mën nañ ne ko coppet sax yóbbu. dara du yëngu àtte àtte boo xam ni kii. mais ñu ne nag léegi nag des na nag finaal ba. mais est-ce que du. bii njëkk nii bii mën nañoo dem ni ne bàyyi mu sedd. waaw bële nag ñu demal daajal ko ban. xalaat la daal. ay xalaat la daal ay xalaat la. macha allah xalaatu asa nag mooy mooy. def yi war a mën a demee. lu mu ci mën a doon daal man ji dama gëm waxi sëñ Abdul Ahad ji mu waxoon ni eh, réew mi ku fi nar a indi leneen lu dul jàmm. loola ci yow lay yem. man nag loolu laa gëm xam nga am na ñu naan réew mi waaw ñu fi tëdd am na mag yu gën a baax magi Sénégal tëdd nañ feneen te réew ma nangam man nag dama gëm li sëñ Abdou Lahad wax mooy fii ku fi nar a indi leneen lu dul jàmm mm-hmm. réew mi mën nañ am jàmm mais yow mi ko indil waa réew mi yaa dul am jàmm wallaay man loolu laa gëm mm-hmm. waaw damaa gëm ni suñu jàmm ji kenn duñu ko xañ ku ko nar a indi fii ci réew mi yow yaa yow yaa ci taq rëpp mm-hmm. euh, euh, jot na sënkam léegi ah. lënd